daal ak kii sonn rek. loo def ba sonn. we jóg leen eh. eh, kan moo fi invité ngént ah yow laa wakal kool ki mu puudar mel ku ñëw ci kew kii lu mu sànni fii ay kon hmm. repos eh, eh, eh, lii lan la a ah, booy merci ah ci ñaari kii ma indi la xam nga temps yi commencé naa am tuuti koppar mhm. dafay baax ma am jànq ak boy Pape Cheikh Diallo mi ngi ma indil ak Fama Thioune boo leen dimbalee tamit ah, bilaay bilaay danoo sonn danoo sonn xama dimbali leen rek xama cun nag dinaa ko yóbbu sangu ndax day wokkatu xam naa bi nga koy gisoo ko mais après ah ok <laughs> ka saay saay toog leen garde ak bandi eh, yow toogal eh. lan la ka moon laal ah, ah. waakal maître Ndiaye fay bu suma téeméer yow lan la kan moo amel xaalis eh, Ndiaye bu nu paree nga fay leen Ndiaye boo lebee da ngay fay loolu fekkee mu ko ah, c'est la loi c'est la ameel fay leen point voilà bu ma rek wax nag ah jërë ngeen jëf tribunal dellu si waat nañu ci liggéey bi ngeen am yar tribunal bi nag duma leen wax li fi xew xam ngeen ko ah, sëñ bi sa veer yooyu sa mbaxana mi na daj jërëjëf on peut commencer affaire des affaires kadi affaire bi bees a takk bu fi masul am am na fi tey jii maa la wax lii affaire de réewante affaire de injustice affaire de impolitesse affaire de rabaa eh, eh, eh, waay ndax jaru ko ñu teg li mu def dam ma met waay jaru ko la góor le bar sur procureur personne ne parle te kenn wax sax am lu ma nàkkari waay tëj leen ko si biir daf yabaate lay metti na ma metti naa ma rey na doomu jàmbur eh, eh, garde. ah góor gi Diallo yow la. waaw man yow safar nga. waaw safar la. ah, ah kay. Ah, góor gi la fi indee yëfi réewande la. Mhm. ndax defe naa amee permis. dafay fekk nga jaar fi nga war a jaar pour am permis xam code de la mu bañ ak li mu bëgg ak li nga war a defam waroo koo def waaye yow xam nga njariñ ambulance ci réew mi ak sapeur pompier xam nga seen njariñ pour soobe ay bakkani nit moo leen tax a jóg yow ci sa permis nga yor sooto ci digg tali bi di téléphoné benn ñaareel bi ñu toppatoo sirène toppale tëngeej ba croisement Pikine nga lànk ni doowaat tali bi bakkani yeboon faatu ci oto bi nii ci pour sa réewande te ñëpp xam nañ téléphone ci dawal te interdit par la loi. loolu bu yokkoo da nga war a wàcc. ñu wax la nga ni doo wàcc parce que parce que eh, eh, li ma gën a naqari mu ne oto sapeur pompier bi yebul kenn. jëf yebul kenn lu la fi indee yow maa ngi sama loxo. di wax ne lépp lu ma fi wax. bu ma xool bu ma xool. yow loo ko le président. Eh, sama tur bu de. yow laa déglu ah, ah may ma may ma may ma balaa ngay wax ndax yéen da ngeen di wax di di di di di di di di wax leneen anan ma ma ma ma mademoiselle Afi Diop yow moo fekk lépp merci jërëjëf ah yow mu yee. kii ya gën a yow yee xam nga lu la yëgal yemal ak sa sa sa jaaro yi niroog ay ay ay ay ay kii yooyu ñu def ci nekk bala balance nga naan may ma waay na nga génn sunu vie privée de ah madame Abi Diop yow la xam nga dof boobu nu mu ko tëddee <laughs> yow baal ma am nga jëkkër jox ma sa numéro téléphone de fii ngay laaj numéro téléphone ci devant tribunal waay ma eh eh, eh pardon waay dama lay dóor de. bi nga soobu dóoree du ma fay. madame nan def. merci monsieur le président. merci. maa ngi yëkkati sama loxo. oui. lépp fu lu ma wax rek dëgg lay doon. Mhm. man médecin laa. jigéen day sangu waaw ki ñu yoroon malaat la dafa feebar. Mhm. bàyyi kii mu wax. comme dafa feebar nag feebar bi metti na ñun def nañ ci lu ne lu ñu man lépp mais gisuñu ci moom tan ñu lañ koy yóbbu beneen hôpital ci lañ ko dugalee nag ci ambulance pour yóbbu ko feneen mais fi ñu ko doon yóbbu sax sorewul ak hôpital bi mu jógee bi ñu dawee tuuti moom mi muy dawal nekk suñu kanam. sëfër bi kalaax ma maanaam pause mais Diallo yow la. mais ki li muy wax c'est très important may moom mi la moo doon dawal oto bi. nekk suñu kanam. Mhm. man maa ci biir oto bi ci biir ambulance bi laa ne parce que malade bi maa ko yore woon moom mu jiituñu chauffeur bi kalaat klaxonné ko ba sonn faalewuñu nu ko neex lay dawale après nag ci la benn waay bi nekkoon foofu am de tenue la mu arrêté ko ba sonn mu jul mu bañ mi après kooku daf ko topp ba taxaw ñun ci lañ egg si mu génn malaat bi yàlla def na dafa mujjee ñàkk bakkanam ci biir oto bi. parce que même feebar bi metti woon na. sigg leen ko digaale. sigg sa wàll feebar bi metti woon na mais moom bu ñu mayoon rek malade bi mën na dundaat sax kon weer. ndeysaan mais ñàkk xolu yërmandeem ak réewande gum ñu wan. wàcc ni ñu yéen dimbali leen ñu nii da ngeen mel yeboo leen dara. dëngali da ngeen ñoo gën a bëgg a yàkkamti gënoo leen ñoo yàkkamti toroxal ñu foofu looloo waral tey ñu indi ko fii ba malade bi fa mujjee perte bakkanam ci ak cause de moom mii moo tax moo ko rey. jërëjëf merci mademoiselle silence. oto sapeur pompier la parce que ah, ah ah oui vous avez le droit de benn la benn la ambulance ambulance la parce que oto sapeur pompier def ambulance la rek sirène moom sirène la rek boo ko déggee noonu da war a wàcc am déet merci ah, dégg nga leen la yow maa ngi yëkkati sama loxo di wax ne lépp li ma fi wax rek dëgg la monsieur le président ndaw si li naa sànq sama tur boo ko tudd maa ngi jéggal li mu wax ni dëgg la du ma ko wedd ah, yaa def maa def ndokkale mais ba tey reyuma ndaw si mhm. man reyuma ko mhm. man du ma rey sax laa eh, eh, laajuma la koo rey koo reyu dama ne du yaa yoroon sa oto ñu wàcce loolu la nga bañ yamal foofu rek nu mu demee dëgg la mhm. man maa yeboon man maa man maa nekkoon ci kanam doon dawal waaw mais ñoom dañoo tàmm heure bu ñuy dem fenn rek dañ naan pip pip te yemuñu dara loolu moo tax ma bañ a <laughs> maa la ko ñaan may ma ma rendi booy bi. sa nopp yi ngay mel ni ku juddu deuxième saison. waaye may ma waay. jàpp ci nga naan pipi pipi mel ni ku football nawetaan. bàyyi ko kaay damay bañ dem si wetu ndaw si kaay. ndaw si baax na ndaw si baax na. ok dama toog fee xam naa li nga bëgg li ngay nakk saale. man booy yow doo demee noonu booy doo génne noonu yow. ndaw si nga bëgg a waxal doom bi nakk jaay. booy bi du génne noonu. nan dem continue. muusantu muy pip pip. booy bàyyi pip pip neexuma ci la ma benn alkaati ne pour ma droite ci laa droite wàcc. waaw ndaw si ñëw fekk ma kott ma jàpp ma di ma dóor naa ma yaa kii yaa rey tamit xaw ma. waaye bi la wàccaloo wàccoo tali bi. wàcc naa tali bi kay. jërëjëf doy na. merci comme yaa réew ba yow sama kanam dafi wax pip pip te pip pip bëgguma ko dinañ ñamante ma ak yow booy bi dama ko bàyyi mu génn moom dafay neex moom. may ma de may may may jàll. si ndaw si bëgg dem doo fi dem fii ngay toog par force. xam xam naa li mu bëgg si ndaw si la bëgg dem du ma ko nangu ah. du ma ko nangu day toog force. doo fi buus doo fi buus di jaay muusante nag ma gën a muus muy nakk saala maa yow yàgg nañ. jeex na waay jàll. ay du jeegul si yow du jeeg ci man. ah kii. tu as la parole. merci monsieur le président. merci. maa ngi lay nuyu di nuyu ñu nga toogal Met Ndiaye nuyu naa la public bi toog maa ngi leen nuyu. monsieur le président xam nga kan moo gën a neex li jënti mooy ki def ba pare di man maa def kon jëmm ji taxaw di jàllu ay dossier dafay neex a àtte tey parce que nag juum du ñàkk ci doomu aadama xëy na dafa juum moo tax bi ñu ko arrêté taxawul maa ngi jéggalu nag ci loolu bu baax a baax damay summi sama tenue avocat taxaw en tant que citoyen di ñaan rek nga jéggal sama jëmm ji taxaw te yàlla rek tax bi ci topp nag mooy ñoom ñii nga xamante ne nii ñoom ñoo yoroon malade bi ñu baal ma ci ñi ma ko war a wax xëy na malaat bi sonnoon na mais ñoom tamit bu ñu yoree malade nañuy teel a jël malaat bi du ko génne moo ko ñu koy téye seen hôpital yi ba ñu sonn ñu bokkoo génne moom mu taxaw ay ko de parce que ba tey gisul malaat bi te xamul woon ni malaat moo nekk ci biir oto bi. objection monsieur le président. objection récupéré yow may noonu tooy na su fekkee sa xorom yi dañu koo karole dinaan xam dara ci yàlla faroon Ndiaye. merci monsieur président. merci. Mat Diallo maa ngi lay nuyu. Maître Diouf maa ngi nuyu monsieur procureur Maître Diouf maa ngi nuyu aussi serre publique nuyu naa leen bu baax monsieur le président euh, Maître Diop amul lu may wax am na ndax tey dafa sol mbubbu avocat taxaw mel ni ku xamul tenue bi mu sol ban cër la ko war a jox beneen bi ci topp ki nga xamante ni mooy góor gi Diallo dama yaakaar ni yow da nga nekkul citoyen wala yow da nga xamul nan nga war a comporté woo ci sunu réew bi benn nee na chauffeur la yor otoom di dawal ambulance bi topp ci ginnaawam di ko klaxonné moom moo tax a wax ko ni carrément dañuy yab ba pare du ñu yab dara ba pare di klaxonné ngir ba a teel dem même bu ñu yabul calculer ni ambulance boobu mën na bañ a yab ñu woo ko mu war a jëli malaat urgent boo sukkandikoo foofu rek yi dañuy yab wala du ñu yab. monsieur le président kii deful li ko war ndax tey ku nekk xam na ni ambulance fu mu fu mu fu mu fu mu fu mu yuuxoo rek képp ku nekk ci tali bi nga war a wàcc loolu moo lay may ne la carrément respecté nga suñuy sarti réew beneen bi ci topp ambulance bi yàpp na xam xamuloo malaat bi ci yenn situation la monsieur le président yaa ngi dégg ngay dawal ni mu la neexee di defee ni mu la neexee ñu wax nga wàcc di indi ay problème yoo xamante ni kenn xamu yooyu problème ba mu jaral la ngay seere ñu ni déetawaay ngay dawal di wuyu téléphone monsieur le président kooku duma ci wax dama koy bàyyi ak yow mais jot na pour chauffeur si xam ni ambulance sa heure bu toppee sa ginnaaw di klaxonné wala muy yuuxu wala muy ak lu mu mënti def. yow da nga war a wàcc tali bi. Ndiaye doy na. mais si monsieur le président. Eh, doy na ambulance bu yuuxu fan la am. nga am klaxon monsieur le président soo ma dégloo rek ma ñëw. xam nga klaxon ak ak d' accord merci beaucoup. waaw ah, yuuxu d' mais da ko ci doon mais lu may wax ak yow. waxal tuuti lu may wax ak yow. waxal tuuti danga président maa ngi lay ñaan. Mhm. kii xam nga li war ci moom na ko def. merci Diallo. yow eh, ba nga eh, solee sa yére dem ca sabar ga sabar taxawal. merci eh, wuy ma da nga ay mbagg. non monté wu ma <laughs> président. doy na mën ngaa toog. <laughs> ok eh, monsieur le président merci jërëjëf mais ñi dem ci sabar ga fekk sabar gi tas ñu ngi lijjanti loolu dégg nga doy na nag ok doy na ah da nga ci bokkoon da nga asma de xam nga ma de da nga bokkoon ci ñi dama sabar raj yàlla faral merci monsieur <laughs> le président raj njaay raj raj man dañuy liggéey doy na monsieur j'appelle à la barre l'agent Haïti gendarme ah madame Diop jërëjëf mën ngaa toogi jërëjëf merci jërëjëf sa liggéey rafet na madame Aïti mooy kat. mademoiselle Aïti gendarme la moo arrêté oto bi moo arrêté. Ah, gendarme bu jigéen bu jigéen la waaw. ah ah eh eh eh kooku eh, eh, eh, teg ko sa loxo am na lu wàll comme yow quand même. mademoiselle Aïti merci beaucoup. fi nga nekk sax war a fee sol mbaxane mais da nga gaañ ci diggu bopp ne l'enlève pas. ok merci beaucoup. mademoiselle Aïti yaa jàpp kii taxaw. cher tous, bonjour. Oui. Monsieur le Président, moi je suis gendarme. J'espère que bu ma taxee fii lu ma fi wax lépp dëgg lay doon. parle fort là. ma naa bu fi taxee lu ma fi yëpp dëgg lay doon. waaw semaine passée dama monté ci tali bi di gérer embouteillage bi ci laa gisee euh, benn ambulance di ñëw nekk de loin di klaxonné di corné di corné rek. chauffeur bi nekk ci tali bi mel ni jongoma ci biir këram. Eh. di dawee nu ko neex faalewul li kii di klaxonné ma jël sama sifflet sifle mu gën a topp tali bi di dem ci laa taalee sama moto ñëw arrêté ko droité ko bi ma koy droité dégguma sax ndaxte mu ngi wuy téléphone bay tàpp client bi mu dendal ci laa ko droité mu taxaw ma ni ko yow xanaa déggoo ambulance bi di corné mu ne kii. yàgg naa ko suivre dégguma ko woon ba mu yàgg mu ne ma ñii dañuy yab nit dañuy piib piib rek waaye ñu kenn moo tax ma bind dossier yi indi ko fii. merci merci merci jërëjëf. man nga def sa place c'est la fin di courage. monsieur le président. merci à notre police bi nga xam ne mu assuré suñu sécurité bi aussi à la gendarmerie mais merci à nos sapeurs pompiers ils font un extraordinaire. leur devise et sauver ou périr. voilà. monsieur Diallo maanaam sauver la wala ñoom ñu dee. ndeysaan déggal lii rek. loolu mooy seen devise mais tey bu la dara daloon yow mi yow mi ñuy ko yow mi sirène bi ngay dégg sirène bi nga koy dégg say nopp taxawoo tey bu la dara daloon wala nga def soog ci kaw tali bi ñoom ñooy ñëw pour dimbali la su jaree dee ñoom ñu joxe seen bakkan dee ngir yow nga dund. et puis monsieur le président du ma parce que Maître Diallo a tout dit ci loolu. nañ xoolaat bu baax seen comportement. mais c'est ça qui montre que ne le manque de civisme est devenu l'apanage de tous les Sénégalais xam nga lii la war faites appliquer ce qui est le droit. Ah, defe naa ni loolu leer na ah yow nag comme yaa taxaw fii wax sa réewande gi nga réew balaa ma ñëw ci yow dina am leneen lu ma leeral ah sénégalais yi réew nu de danoo soof ndax soof manu weesu oto bu topp sa ginnaaw même bu klaxonné. yaa ngi ak war ngaa xam li xew xool nga fa xam sax mais téléphone ci tali c'est interdit par la loi loolu ku am permis war nga koo xam xanaa ki koy def maa tooy la def am déet reewande la reewande la am déet bi ci topp mooy sirène bu mën a doon sapeur pompier yooyu ambulance yooyu moto police yoo war a droité may ko mu jàll nan la nit di yu xoote am soxla loolu fan la da jooy te kenn la eh yow di jooy te kenn la yow laa waxal. jooy ma de. ma ne di nga jooy te kenn dóoru la. déedéet kon kay ambulance bu yoo xam am na lu xew. nga réew ni doo wax tali bi li nga wax je suis très content de l' intérieur soxla naa ko fii parce que autoroute euh, euh, tali bi war naa am ay voies yoo xamante ni c' est uniquement pour les ambulances et les sapeurs pompiers mais da ngay dugg ci embouteillage bi fekk sapeur pompier bu taxaw di si ren gendarme bi ak alkaati bi ñoom piré piré bi lan ci man man yenn yi tamit. war na leen wutal tali bu liibar ñu cay jaar ñoom dégg naa sax bu ñu jëlee employeur dañuy fayeeku ah réew mi ñoo bëgg xaalis nag <laughs> bu ñu génnee nga waroon ak Sall c'est urgent léegi léegi loolu dama ci dama ko jóg léegi yow nag dinaa la tëj ndax kooku gaañu doo yàlla rayoo ko sax waaye sa reewande bokk na ci ndax ku ñuy secours nga baare ko ba mu faatu sa responsabilité nga ci am de. bu avocat laa jot. ku ci ah. bu avocat laa jot. waaw pour quelle raison. mais waxoon naa moom mu fay téléphone moom moo gën a xam waxati démb rek wax naa ko quoi. batterie ah. <laughs> bi dafa yàq woon bi xam nga bi bi bi mu sama doom ji may gu njëkk. waaw bi nu xuloowee boobu laa ko delloo. comme ah, boobu <laughs> am naa ko rek. <laughs> dem na ba def def na ci élastique. Ah. maa ko gis élastique la ci def parce que ko ma ko dara bàyyi ko bu ko def ah yow booy dinaa la tëj six mois de prison ñamal la yeneen six mois yoo xam sursi la sa da dama koy saisir ba nga génn ñu yar la parce que keroog see bii un taximan bu jaar ci pont bi fi nit ñi war a jaar reewande reewande reewande mais ku fii ni rek dinaa la yar yar bu yomb am déet garde permis bi soo duggee na ma ko récupéré la permis bi dañ koy saisir ba nga génn ba am ba am yaru lan bañ bàyyi ma dara bàyyi ma. waaw ah ah eh eh eh. yaay sama yaay sa yaay ma ca armeel ya. la séance la bi ñibbi leen ñibbi leen dara jotu ko.